liggéey li muy liggéey def ko ci kër tabax ko mag jóge fële ni ko bala ngay juddu laa ko jëndoon rajoxe naa ko te doo ci mën dara te mag moomu di Moustapha Tall li mu wax nee na soixante-dix-huit la jënd terrain bi na ñëw woon kayit bi koo ko jaay ci ban notaire ba tax mu moom parce que boo moomee lëf soixante-dix-huit ba ba deux mille deux ñaar fukki at ak ñeent may mu na soga mom téré sa ko jënd commencé tabax yow fo nekkoon ak li fi am ci teraanga yëpp ba jiite fi duwaan am moyen do mëna ne mëna ko won tabax ci law mom ñaar fukat ak ñeent defo ca dara ci almadi lolu la jaaxal lañu ñuy wax lolu ki xam mom mo moo jënloog bi ñu wax Omar Samb kërëm ngi ngeen gis bu jënloog téré bi toj bu bu maymuna bi maymuna li muy tabax yëpp fa lay naanee ndox fa lay teg chaise am toog di xool di di superviser xool liggéey bi Umar Samba bàyyi ba may a tabax ba toxu si ay at yu bari ba ëpp ay fukki at ba am fa doomu ngénte yeewu rek li maamam foofu ma ne génn gi maa ko moom génn wàll gi Moustapha Tall waaye yéen jooy ma wu leen Sénégal jooy ma kii nee na moom moom boobu ki ju doogul kële ñuy tabax di mu mu jëloog terrain bi kii di ba pare dëkk ba fukki at nangam mu ne man maa moom genn waale genn waale gi Moustapha Tall waaye ñiiw du jóg ci ñoom waaye ñii du yoxe ñoom lu ñu def lu ñu def mooy lan li ñu def non lii rey na nit loolu mooy lu criminel lañ def mooy nit ñëw jënd terrain xam ngeen ni muy demee ci dëkk Lebu yi da ngay jënd ba pare dem régulariser muy muy ngooru almaadi yoof wakaam seeni toolu maam la ñu woon ak seeni toolu baay ñu doon ko seeneen maam ak seeni baay bi yëg nañu ay domaine national état bee ko moom moo tax dañuy def bi demande de régularisation ndax dafa xew soo bàyyee moom doyatul soo maa moom doyatul da ngay dem ci yoon comme ni ko tey bu jaay waxee boo jëndee jënd bu jaay yoon acheteur de bonne foi mu ngi nii nee na Mariam Bousso dafa ñëw ci man jënd terrain jaarale ko ci yoon ak ci loo xam ni dëggu na du ay ñublang war ko dimbalee ba mu jaar fi war a jaar pour régulariser li c'était en 2006 signé Tahibou Ndiaye kon kenn du nangu liñ gëmloo nit ñi ni maree mi ku dëgër bopp la dañ ne ko ba fi tabax mu tabax dañ ne ko moomuloo muy moom moom lu déedéet dañ ne ko li nga jënd war nga ko jënd waaye dafa am litige te dafa laaj nga demandé ñu jaaree ko yoon ba muy yéeg di yéeg ba nekk bàyyi ba nekk titre foncier noonu la ñëpp di amee kër ci dëkk yoofi dëkk Libuy dëkk Ngor dëkk Wakaam dëkk Almadi ñëpp xam nañ loolu domaine xam na ko cadastre xam na ko impo xam na ko ministère des finances xam nañ ko commission domaniale xam nañ ko dara soppeeku fi nag li soppeeku mooy coxor gi am léegi ci réew mi iññaar gi am ci réew mi ñàkk yërmande ki am ci réew mi ba nit day xeex ba am li mu am nga taxaw dinaa ko nangu ci moom Sénégal léegi beneen Sénégal la la ñuy sunu maam yi bàyyee woon ci solidarité ci am yërmande naaw na dem na yoonam Sénégal léegi ku moom ku mën sa moroom duma ku lépp doole woon la ko ku la gën a gudd loxo won la ko loolu nag ñu di ci ñaan

terrain bi état bee ko moom terrain bi domaine national la terrain bi TF la loolu karas rek moo ko mën wax ti wax na ko kon maa jënd 78 2002 kii jënd tabax 24 ans defoo ca dara kon yow xam nga am na lu taxoon tabaxoo ci xëy na sa këyit baaxutoon xëy na li jënd nga ci diggante bëgg am këyit bu waa bu baax ni tey laa tey laa leen di rey booba maa ngi waaf di këyit am naa këyit bu rëy nag bu titre foncier ci diggante bi ñu titre foncier annulé indi yeneen yu bees lu tax loolu nañu ko leeralal waaye Moustapha grand Moustapha leeralal ñu lu tax ñu ngeen di duplicata ba léegi abo original grand Moustapha leeralal ñu boobu léegi foo nekkoon lu tax tabaxoo 24 ans te nga nekk directeur de douane am ay moyens xanaa du ne nga retraité ngay waaj a tabax loolu aussi ba nga ci tontu xanaa booba kay da nga doon toppatoo kayit kii moom moom it mu toppatoo ay kayit nga njëkk ko am kayit dal ci kawam ko. loolu dama nañ ko nangu ngeen régularisé yow nga njëkk am kayit bi gën a baax bu titre foncier moom pareegul mu ngi nii kayit baa ngi nii waaye mu ngi tabax ñu ne ko da ngay tabax pour que ñu mën na a régulariser xam ne def ko fa dara moo tax mu def ca dara ba boo fa deful dara jën terrain mën nga ko ñàkk terrain nuyu ko sa duñ ko nangu muy tabax di dem di tabax kenn ne ko taxawal Moustapha Tall masu ko wax taxawal contrairement li wax ca télé yi kan moo dof gis borom kër am kayitam kayit daba ci këram mu a taxawal nga bañ c'est que Moustapha yow yore woon kayit waay sa kayit ba képp ko gis xanaa léegi ko am waaye leeral ko Sénégalais yi waaye lii métti na de xam nga ñun ñëpp dañuy dee dañ fi jógee dañ xalaat suñu bàmmeel waaw nañ xalaat suñu bàmmeel lii métti na trop lii kenn ko bay mu jàll président Macky Sall dimbaleel may mun a defal na am enquête ñu xam mbir mi nu mu demee kañ la Moustapha am ay kayitam ku ko dimbale ba mu toj ku ko tojle ku yebal waa Descos ak gendarme yi ñëw pour toj ak quatre pilar